Perro gunum le o oh, kon rumbu jom la gan ronge jom profate no bahaja kor man fa gunum le o oh, kon rumbu jom la gan ronge jom profate no bahaja kor man fa gunum le o oh, kon rumbu jom la gan ronge o kon rumbu jom la gan ronge jom profate no bahaja kor man fa gunum le eh, no bahaja kor jom la gan ronge ñombro fate no bahaja kor mar fogonum laye o oh, kor ndombo job lagandonge ñombro fate o oh, bahaja kor mar fogonum laye o oh, kor ndombo job lagandonge no maade e fab ko kor nyima Amor salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi ni nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar dañ joxaat seen wàccuwaay bu wërëwër di ziar kullum kuy safoo wasaare rek maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la ziar jox sa wàccuwaay tey ñu ñëw fii fii Soumbédioune la wala fan kenn xamul fan la waas daal fu ko neex lay fekk nit ñi tey fii lañ ko fekk waas jëm si journée la 4 ku xam la bi ñu boole si ndaanaan yu mag soo nee grand combat bi Batista Boy Sadio Wassintor yéen bu diis ah, boîte vocale. boîte ama boîte vocale ndaanaan si nekk bari na te ñu ñëw seet si kenn si ndaanaan yi moom nag dafa am loo xam ne dafa gars yi bàyyiwuñ ci xel waaye dafa mel ni dafa waa géejawaay dafa mel ni dafa miin waa géejawaay waas nuyu naa la. waa siyaarate kaluxum faraxum daaren aw saara rankang bigiri bigiri pang eh? bira yumbo sukotir ya des lapin coo lapin caa bàyyi cheikh bërda cak-cak noo cenco noo commenté waas la taalibe cheikh mahamad kunta ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonante bi di sant suñu ñetti waajur di sant suñuy maam di sant suñuy yaay di sant suñuy papa yaa ma gën a xam di sant seen amaan moom mi nga xam ne moo gën ñëpp gën ñëwoon te gën ñii bëgg a ñëw di sant suma waa écrit ñiy jàpp ci entraînement yi contact yi leen di sant boo yëpp bàyyi ma kenn ma bi yëpp ak sama coach yi ku ñu mel ni ñoom Wila Sène ñoom Eli gars dañuy sonn ci man maa leen sant di sant sama waa koñ waa Dakar Plateau ñàccu keer man Dakar Plateau laay représenté mais ñàccu keer laa juddoo fa laa yaroo fa laa baax di sant sama waa waa Ndiassane waa kër Cheikh Mouhamed Kounta xaadar pire laa di sant sama waa dëkk waa Thiawane Bambara di jaaral waaw Thiawane Bambara di jaaral di jaaral nag euh, sama benn moo moo gaañu sànq ci ngoon nii yaa xari jara maa ngi koy jaaree yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana waaw mais waas mhm. ñu jëm la kat mhm. waas da jël sa siège teg ko diggante Amadou Bari wala diggante tali bu mag wala waas nu yow lan nga yebbee waa géej waay ba nangu fa génn waaw non dara man moom sama sama sama làmb ah. moo toll foofu. salaam moo toll géejaay noo dafa toll parce que samay adversaire ñoo fa ne heure bu fa sa adversaire jeexee rek dama fay jóge xool leneen parce que làmb la. dugg nga fa. waaw si bébé Elton. ñu mhm. la déet nga yóotu 5 tonnes. ñu mhm. la déet nga jël yenn bu diis. waaw loolu du ci dara xëy na yàlla suñu borom moo dogal ñu war a bëre rek. ñu war a bëre sama adversaire bu jeexee géejewaay dafay jeex ma xooli beneen koñ tamit wala beneen secteur loolu du ci dara làmb rek. waaw mais waa say adversaire bari nañ bari nañ trop. waaye nga jël sa siège bi rek teg ko géejewaay. waaw non xam nga ñun ay xale lañ dañuy liggéey ne suñu ginnaaw kot suñu grand yi ku ci mel ni Cheikh bu mbay guy gi mu ñuy digal di ñuy wax ñuy def ñun si ci ginnaaw lañ topp bu ma woon suba suba suba bëre nag roi des arènes moom laay bëre parce que eh. man làmb laa fi nekkal ne dugguma ci làmb yi nag ngir ñàkk jom wala ñàkk fayda non non dama dugg ci làmb ngir am lu ci roi des arènes am kër ji am ci oto jàppale suñuy waajur loolu moo tax ñu dugg si làmb ndax waas dafa départ si làmb ñëw Iba jamono Iba Mar ga waaw ñu ne waas comédien la waaw loolu lañ doon wax waas comédien la waaye comédien bi fi ñu toll nii mu dinaa nekk mbër de waaw parce que loolu yàlla moo ko dogal parce que làmb ji dafa bëri ay mbër dama dama ñëw fekk làmb ji saturé bëri ay mbër ma ñëw andi sama slogan bopp ba génn bu ma génnee xam nañ comédien laa wala du ma comédien loolu nag waxu waxu mbedd la man loolu du ma ko tontu parce que maa ngi samay preuve bi mooy sama sixième combat def naa cinq combats cinq victoires bi mooy sama sixième combat. waaw waaw nga jël yéen bu waaw ku xam yéen bu xam ne adversaire la boo xam ne day xeex day bëri. waaw ñun dañoo doon daw nekk école di bari jon suñuy grand suñuy mag ne suñu ginnaaw duñu jàppale gars yi dañuy jàppale gi nga lu ñuy daj fii suba ngoon moom la ñuy daj fii barki maam Serap Fall moo yan bu dis dina xam ne am na combat parce que ñun ay xale lañ dañuy liggéey caaxaanuñu barki maam Serap Fall yan bu dis am na. am na combat waaw Seydou am nga combat de. waaw man munu man man xale laa damay liggéey. Mhm. yan bu dis man ci làmb laa ko fekk. ma def samay preuve ba àgg ci moom. kon man sóoraale ma dara ci moom aw ma leen lu may calculer ada bu sulee damay dox ci kawam du ma ko daan ko xool leneen yow nga dox ci kaw yéen bu dis du ko daan ko lu may dëggal la te bu neexee yàlla su ma mhm. ko daanee ba pare naa leen fekk plateau waxoon ne na la waxoon naa la ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. parce que liggéey nañ ko waas li ngay wax ni dafa mel ni brise bi moo xaw a sedd. non wala waas lan la. non xanaa seetaanoo samay combat. xanaa seetaanati waaw du ma xaar mbër. li ma entraîné ak li ma entre ànd ak samay mbok loolu laay ñëw dëgël wone ko du ma xaar nit xaw ma lu nit andi. ñi nga daan bëreel. waaw ak yéen bu dis duñ benn. waaw non benn lañ parce que man chaque jour damay jàpp ne premier com heure bi damay jàpp bu may waaj a bëre boobay doon sama premier combat te man yan bu dee damay jàpp ne loolu sama premier combat la defaguma dara ci làmb bëreeguma barki maam Serafal te bu neexee yàlla dina bëre dina xeex. ci kattanu yàlla baaxam yan bu diis dina bëre dina xeex. itam di nga bëre di nga xeex. waa ñun ay xale lañ ñun yaay fi ci géej nga ñu fekk ñii liggéey man topp ma ci ginaaw kenn yaakaaruma kenn yàlla yonanti bi laa yaakaar ne samay entraînement bopp di liggéey di ñaan suñu borom suturaal ma ma ndam parce que lamb ji dafa am fu mu war a yóbbu ci moo tax ma jël ko joxoon nañ ko ay mbër lu ñu ko jox ci mbër ëpp na 3 mbër ñëpp a delloo avance bi ah, moom yéen bu dis waaw man ma ñëw jël ko man tamit lu ñu ma joxoon ci mbër ëpp na 6 mbër eh. dañuy dem ba ci biir affaire yi yàqu kon moom bu ma jëlee dama koy sant yàlla di mayante xaalis yi ñaar waaw parce que ñooy mayante xaalis quoi mm-hmm. mais am na lamb joo xam ne mais waas am nga client de waaw yàlla baax na ñu wax la ko ñàkk la ko wax waaw am nga client non loolu dara man homme de base nga man taay tafatin laa war eh. naa mën am ci lamb lu ne maa ngi liggéey. combat bii nii séntu nañ ci waas ñëw sampu jaaga jokkoo maa jor jor ko leen. waaw sama combat bi jàll man ak 5 doon xanaa seetaanoo ko. non la la ko. sa na waaw noonu la demee quoi waaw. te combat bii nii am na war ma jël ko am na am na fu ma ko teg te fonk naa ko bëgg naa ko te am na fu ma war a yóbbu ci làmba moo tax du ma ko caaxaanee te bu ma ñëwee làmba bu neexee yàlla bilaay walaay talaay bu ci yàlla àndee dinaa dinaa ñu bari moom dama xaa seet mu dégg mu ne Wassintor leen rek la am si làmb ji nii nii nii comédie. waaw moom xalaatam moo toll foofu xalaatam moo toll foofu man sama xalaat weesu na foofu dama ko jël pour daan ko jëluma ko pour lu neex doomu aadama yi non dama ko jël pour duma ko daan ko xooli lu ne sama kanam samay morom kasi ñoo ne ci làmb ji di bëree. kon tey bugguma ñëw ñu ma moo tax heure bu ma amee combat dama ciy def jom ak ful ak fayda ba génn ci waaw noon la demee quoi. promoteur bi di Gora Ndoye bàyyi say morom yu bari bàyyi fi say morom yu bari say naataango yu bari. tànn la si dëgg la bu jour baa est-ce que li muy séntu si pare nga pour. waaw parce que góorandoo ñoom dama koy santa parce que bu ma woo bu ma woowee làmb ji baat tontu la mu taxaw waaw kon dama koy sant ñoom ak ñoom Mor Diouf sama waay lañ man maay mbëru amateur dañ may jàppale di ma ñaanal sama waay lañ bu ma woowee ne ma sa combat laa bëgg a yaa bu dis ma nekk amul benn problème woo sama staff waxtaan ak ñoom ñu ne ma amul benn. mu nekk dañ naan jeune amateur la wala association des amateurs combat bi. yàgg na waxaale bi yàgg na yàggul. non waxaale bi yàggul daful sax ay cinq minutes dañ ma woo baat tontu la parce que góorandoo moom su mu la daf may jàppale ci làmb du moom kese amateur yëpp ñoom ku ñoom grand Faye ñoom grand Laye Ndiaye ñoom Omzo Bras Kass gars yi yëpp ñu ma sant ñu ma santul yëpp dañ may jàppale moo tax bi ñu ma woowee ne ma amateur yee ko bëgg a ma ne leen amul benn problème baat ak tontu la te bu neexee yàlla làmb ja lu góorandoo di séntu di dinaa def lu raw loolu parce que naa mobiliser sama waa koñ ñu ngi koy waaj sama koñ gars yi ngi takk banderoor yi booy yi ket di jënd ay billets affaire yëpp di ko waaj kon combat bi yomb parce am na a yóbbu moo tax caaxaanuma benn yoon maa ngi liggéey nga dégg combat bi mu taxaw léegi nga ne combat bii ni dafa am lu tax nga jël ko sa boo si bëree pare di ko wax la moo tax nga jël combat bi waaw lu tax ma jël ko parce que man maanaam dafa am fu ma tollu ci làmba dafa am fu ma toll ci làmba su ma déggee sax ñii taxuñ nga non dafa am fu ma toll ci làmb te bu ma bëree ba pare bu neexee yàlla di ngeen ma laaj ma tontu leen ci loolu te bu neexee yàlla parce que samay morom ñoo fees dell ci làmb ji ñun côté bu ñu dëkkee des fois dañuy toog duñu dégg promoteur ñu dégg dara dañuy entraîner suba ngoon kon tey jii ñun am nañ yoon gars yi war ñu jox ci combat yi ñu bëree barki Seydina Mohamed mais bu ma bëree ba pare lépp lu ngeen ma ci laaj naa leen ci wax ba mu leer nañ bu neexee yàlla. yéen bu diis. waaw yaa ngi jàkkaarloo moom loo lu ma koy yóbbante mooy comme maanaam man na waaj rek man maa ngi waaj moom di ànd ak samay mbokk samay xarit ñu ngi may ñaanal sama waa koñ bàyyi ma waa Dakar Plateau bi waa Sandial jamono kusum rëbës fu ma juddoo fu ma yaroo muy ñàccu geer di sant sama waa dëkk waa Thiawane Bambara maa leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant sama waa dëkkaat waa Ndiassane man taalibe Cheikh Mohamed Kounta laa xaadar pire laa man leen santaat di leen woo ci kombaa bi te gis naa jàppale yi ñu ngi ñëw nànk-nànk waaw mooy loolu yaa ma gën a xam. seen waa sin tóor ku la amoo combat nax na la waaye tamit lan nga ko yóbbante moom sax kàddu gu mujj nga tàggowaale waaw sama kàddu mujj mooy maanaam tey jii nii damay ñaan yàlla sutural ma may ma ndam lu sedd guy bu jaree ma xool ko mu daanu sax ma xool ko mu daanu bu leer laa la wax loolu laay ñaan yàlla bu ma sañoon bu ma dama koy xool rek mu daanu xool mu daanu waaw te loolu laay ñaan yàlla loolu maa ko dégg moom waaw noonu la demee mais xam nga dañuy ñaar rek ñun ay jaam lañ hmm. dañuy sabablu di ñaan mais ñàkk ñu fayda ñàkk ñu fële ñu ngi suñuy entraînement di liggéey ci écurie bi ngeen ma fekk ni may liggéey ànd ak samay mbokk kon xamal lamb ji fonk naa ko bëgg naa ko waaw di sant nag waa Petersen man marché Petersen laa ne dama leen di gërëm dañ may jàppale sama saaku ceeb fa lay génn sama sant ñoom ñëpp fii ma njëkkoon nekk maa leen di sant waa asalem gis naa jàppale ku ci mel ni sama grand ñoom ñoom laay ñaa barki maam sa rafet enveloppe bu xaalis sama jox maa ngi koy sant jëndal ma ñaari bologu bee maa ngi koy sant bu baax a baax a baax Abdoulaye Niang di sant sama booy yor sama musique nekk asalem ñoom papa booy maa leen di sant ni booy ñoom baaba ñoom ñoom fils de ñoxor gars yi sama cameraman ñoom booy ñoom bébé Davido gars yaa ma gën a xam mooy loolu ak sama waa écrit coach yi ñoom Mame Cheikh gars yëpp dañuy sonn ci man Amel Lakorose gars yi la kat ñëpp ñu ngi waaj écrit bi instant yi amuñu benn programme bu dul la kat te bu neex dina xam di sant nag sama ñàccu keer maa leen di sant bu baax Dakar ma tudd maa ngi sant ñëpp di gërëm di sant nag sama gars yi nekk ci diaspora bi dañ may jàppale ñi nekk ci diaspora bi gis naa jàppale bi daf may jàppale barki maam Serafal di sant Seydou Bakhayokho depuis depuis pari daf may jàppale bu baax a baax a baax di sant ñoom Petit Lo waaw ñoom Petit ñoom Baye Jili Tarkinda gars yëpp mooy loolu yaa ma gën a xam maa leen di ñaanal sama doomu ndey Moussa Guy gi yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko arjana barki Seydina Mohamed sama doomu ndey la daa génn àdduna heure bi daan na ko fekk fii xaaree arjana waaw sama diggante kanji kanji su mu waat waaw sant am na lu jot a ñëw mais am na lu des mais moo loolu waaw sama patron Ibrahima Ibra Thiam maa ngi koy sant bu baax a baax a baax sama patron mooy loolu a gars yi képp koo xam ne day sonn ci Wassintor maa lay sant di la gërëm mooy loolu yaa ma gën a xam. waaw waas di la bëggewaat bu baax a baax rek di la ziaraat di la joxaat sa wàccuwaay bu wér-wér. luum rek. ziar